Sénégal kii nii Sénégal bi nii ñëw Macky Sall man asalaamaaleykum gars yi man man kii agafo la man Babacar mi ngi gaaw a Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Allemagne, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République hellénique, Monsieur le représentant du Comité national olympique sénégalais, Mesdames et Messieurs le directeur et chef de service du ministère des Sports, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de Spécial Olympique Sénégal, chers partenaires et sponsors, chers parents et très chers la délégation de Spécial Olympique Sénégal. En tant que vice-présidente du conseil d'administration de Spécial Olympique Sénégal, c'est avec une grande joie que je me fais la joie du professeur Mustapha Tamba, président de notre conseil d'administration, et de notre directrice nationale, Raja Durissi, qui a précédé notre délégation vers Berlin. Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, recevez notre sincère gratitude quant à la reconnaissance officielle que son Excellence le Président Macky Sall et tout son gouvernement renouvellent cette année à l'égard de Spécial Olympique Sénégal. Nous tenons à remercier tout particulièrement le ministère des Sports qui a un soutien exceptionnel rendant possible la participation de chacun de nos athlètes à la 16 édition des Olympic Games à Berlin. Madame Gay, représentant du ministère du Sport, fera partie de cette incroyable aventure. Notre sixième participation aux Jeux mondiaux marque ainsi une nouvelle étape pour Spécial Olympique Sénégal. Nous partons avec une importante délégation de 54 personnes. La sélection s'est agrandie, passant de 26 à Le nombre de disciplines s'est accru de 4 à 6. Football, équitation, athlétisme, natation, bocce et basket sont les deux dernières que nous avons introduites. Nous participerons également au sommet mondial de la jeunesse où nous serons représentés par trois jeunes filles. Avec cette cérémonie de remise de drapeau national à la délégation de Special Olympics, vous lui faites encore une fois l'honneur de porter de porter haut les couleurs du Sénégal à Berlin pour ces Jeux mondiaux. Ce faisant, vous accompagnez notre combat et vous réitérez l'engagement de l'État pour une société plus inclusive. C'est avec fierté que nos athlètes iront au bout de leurs efforts pour lever le drapeau national et faire résonner notre hymne en Allemagne. Chaque, comme le disent si bien nos athlètes à intelligence spéciale, que je gagne, Mais s'il est impossible de gagner, que je... je vous remercie de votre aimable attention. ginnaaw bi ma nuyoo sunu équipe bi di ci jiital euh, capitaine bi mais balaa équipe bi may nuyu seen i wayjur euh, ñi nga xam ni ñoo nangu ngeen dem ñëw taxaw ak yéen fii di leen jàppale. di nuyu sunu gan yi fi am may nuyu ambassadeur bu Allemagne ak ambassadeur bu Grèce. yéen ngeen équipe bu Sénégal ngeen suñuy gaynde di suñuy doom war a dem jongante ji ak seeni moroom ak seeni i nawle ci Allemagne Sénégal nag suñu politique bii mooy suñu juróom-benneelu yoon ngeen am fa ay ndam yu bari moo tax maa ngi félicité seen encadrement di félicité équipe bu ministère de sport yëpp mais politique bi nga xam ni président Macky Sall am na ko mooy politique bi ñu tuddee inclusion mooy Sénégal ñëpp dañ ko bokk doomu Sénégal yëpp ci Sénégal lañu bokk ku ci nekk sa cër sa gëdd dala koy jox ba nga mot sëkk loolu dafa fës ci politique moo tax mu am ministère boo xam ni dina toppatoo équité territoriale mais ginnaaw ci biir ci ginnaaw concept boobu li ci nekk mooy fexe ba doomu aadama yëpp ku ci nekk lii sa cër lii sa àq lii sa yelleef ñu jox la ko kon yéen bu ngeen dee ay doomu Sénégal ngeen di suñuy doom war a dem joŋante ji dëgg la xëy na nattu dab dale kooku mbiru yàlla la mais ngeen xam ni réew mi kenn du ko defar te bokk leen ci ci réew mi ngeen bokk kenn ëppalewu leen ci kon fi ngeen di dem di joŋante ji ak seen i morom Sénégal ngeen fa taxawal xam leen ni gouvernement Sénégal yépp président Macky Sall jiite ñu ñun ñëpp mi ngi seen ginnaaw moo tax ma leen di jox drapeau bi ci turam. mu ngi leen di encouragé di leen félicité may kontaan loolu nag bi nga xam ne ministère des sports li ci war yëpp def nañ ko te compétition yi man sa bopp naa ko suivre waaw fexe ba nga xam ni du ngeen fa am benn jafe-jafe du ngeen fa am benn coono war nañoo dimbali équipe yëpp rawatina ñu équipe bi nga xam ni yéen moom ngeen di représenté catégorie Sénégal yi bi nga xam ni yéen moom ngeen di représenté kon maa ngi leen di encouragé di leen félicité di ñaan ngeen dem ci jàmm ñibbi si fekk ci jàmm seeni parents ñu ngi fi ñu ngi leen di félicité di leen encouragé dinañ am sax jataay bu ñuy waxtaan ak ñoom feneen boo xam ne ñu ak ñoom la pour xool exactement ci wàllu prise en charge est-ce que lii war ci catégorie bi yëpp ni ko président bëggee defee nañ ko noonu waaw loolu foog ñu seet ko incha allah dinaa waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp woo ministre yi ci war a ànd yëpp au delà de yéen ñii sport ñu xool catégorie bi yëpp est que li ci war yëpp ñu ngi koy def wala est-ce que seen i attentes yëpp euh, ni ko président bëggee defee nañ ko noonu loolu lu ñu war a seet la te incha allah dinaa ko seet ci fan yi ma leen di ñaanal ngeen dem ci jàmm comme ni ma ko waxee léegi ñibbisi ci jàmm andi ñu nag ay médailles yu bari waaw ma léegi moom day basket waaw ma ne ko nag booy ñëw dëbb nga andil ma médaille d'oru basket bi ak coupe bi. bu loolu wax merci jërëjëf. <laughs>